الجزاء سرنا يوم الجزاء سرنا يوم الجزاء سرنا يوم الجزاء سرنا يوم الجزاء سرنا يوم الجزاء سرنا يوم الجزاء سرنا يوم الجزاء سرنا يوم الجزاء سرنا nii ci yónneen bi def leen nii ci yónneen bi def leen nii ci yónneen bi def leen nii ci yónneen bi def leen nii ci yónneen bi Abdul Aziz de nee na baayu Maodo nee na baayu sëñ Baye si Abdou baayu sëñ Baye si Abdou ku mel ni ci yónneen bi jóg leen màggal yónneen jóg leen taxaw màggal yónneen bi jóg leen màggal yónneen jóg leen taxaw màggal yónneen bi jóg leen màggal yónneen jóg leen taxaw màggal yónneen bi jóg leen màggal yónneen jóg leen taxaw màggal yónneen bi jug leen màggal yónneen jug leen taxaw màggal yónneen bi Abdul Aziz de nee baayu Maodo nee na baayu sëñ bay si abudu 40 ans c'est rafet 40 ans 40 ans quarante quarante sera vote quarante sera vote Abdoul Aziz de nee na baayu Maodo nee na baayu sëñ Baye Si Abdou fu ko màggal màgg ca kaw jóg leen màggal bi jóg leen màggal yónneen bi jóg leen màggal taxaw màggal jóg jug leen taxaw màggal yónneen bi jug leen màggal yónneen jug leen taxaw màggal yónneen bi baayu Maodo nee na baayu sëñ Baye Si Abdou quarante zéro vote quarante zéro vote Abdul Aziz محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من قرب ومن عجب يوم الجزاء سيدنا محمد جزاء أمن تذكر جيران بزي سلام مساج تدم عن جرى من مخلط بدم بدم بدم يوم الجزاء لغت كوفما لعينيك إن قلت كفا حمتا وما لقلبك إن قلت استفخ يهمي يهمي يهمي يوم الجزاء كري جيران بزي سلام مسجد دم عن جراب مخلة بدم بدم بدم يوم الجزاء سيدنا محمد عينيك إن قلت كفا همت وما لقلبك إن قلت استفق يهمي يهمي يهمي يهمي يوم الجزاء محمد